tey ci samedi ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril bi ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaja lim ci juróom-ñaari téeméer ak ñetti test yi ñu def juróom ak juróom ñoo ci positif maanaam juróom benn fukk ak ñetti cas contact juróom benn cas yoo xam ne ci transmission communautaire bi lañuy jóge benn ci Colobane benn ci Mbao benn ci parcelle Assainies benn ci Niay Thioker benn ci Mbacké ak benn ci Nioro ci malade yi ñu hospitalisé fukk ñeent wër nañu si dinañu génn ci waxtu yi ci kanam ci suñu structure yi nga xam ne foofu la ñuy def malaat yi nekk réanimation benn cas grave amul ci structure yooyu yeneen malaat yi nga xam ne ñu ngi leen hospitalisé ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko bés bu njëkk bi Sénégal amee benn ka wàññi nañu juróom benn téeméer ak fukk ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn wër nañu ci juróom-ñaar ñàkk ci seen bakken kenn ki ñu évacué ko ci dëkkam mu des ci suñu structure yi ñu leen di faj ñeenti téeméer ak fanweeri malaat yoo xam ne ñu ngi leen hospitalisé ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di woo askan wi ñu sàmmoon teg digle yi nga xam ne ñoom la ñu joxe maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam